te fi ñu jot a yóbbu ndox sax yóbbuwuñ fa ndox ay teewal lañ fa suul ndax soo weesoo ndindi guy gii ba ba ngay dem cilmaxa giñ digalool wala daaru mus ci giñ lool góor wala jigéen mënula la fee nuyu ndax ay loxo ñee ngi ci teen yi ñee ngi ci fanaan ci robinet yi kon buñ nee ndox doy na fi nañ xoolaat seen bopp nit buy wax day wax loo xam ne aqulaay taalaa lay wax leneen li ci dolliku mooy mataar mi ñu ne ak ñim àndal dañoo wër parti yëpp loolu wax ju yàqu la ndax Matar bi nga xamee ne nekk na APR te Matar ci APR la commencé politique waaye bi mu demee ba xam ne gox bii mu dëkk di Ndindi gisul boppam ci APR dafa xëy bàyyi ko bàyyi gu leer nàññi gu wér péng goo xam ne amu ci lu muy làq amu ci lu muy nëbbu loolay la tax mu def ko mooy APR da koo joxut benn dërëmam APR tëkkalu ko gen ndomb ak tànk Matar lim doon def depuis mu dugg ci APR ba nëga ni APR ko yoree loon bor waaye Matar yore lul bor dara APR ndax su yoree loon APR bor du ñimee génn ndax bari nañu ne APR ñoo xam ne xamoon nañ ne fii lay mujj waaye mënuñu woon a génn ñimewuñu woon a génn ndax loog nañ loo xam ne bu ñu génnee mu jural leen fitnda moo tax ñu ne ca Matar nag loolu dellu ko ndax li tax loolu dellu ko mooy Matar fii la njëkk a mitingale APR 3 millions 500 mille mu ñàkk ko ci. làmb poosam def ko. loolu ku bëggut sab gox wala bëggoo parti ba nga nekk am ndam doo ko def lépp loo xam ne APR def na ko fi joxe ko fi ndigal bi mu ciy nekk moo ci manoon maire kon loolu ku bëggut parti bëggoo sab gox doo ko def bi mu demee ba xam ne gox bii mu dëkk nag te moo ko tax di politique moo ko tax di sonn gisu ci boppam mu woo APR wax leen ne leen banaa bi mu bàyyee yàlla dogal Basirou fay ak Ousmane Sonko indi projet boo xam ne bu leer naññi la bu nit ñi mën a jafndu te mooy li nga xam ne mooy suqali Sénégal mu fekki APR mu fekki mu fekki Pastef fekk fii ñoo xam ne ñoo ko fàkk muy ñi ma limoon léegi Abdou Matoor Abdou Maroon Kumba Ndiaye ma ma moo moo du si la bu ma tuddee ñooñu yóbbaale na ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu ci Pastef ñoom it ñu jàpp Matar def ko baay def ko nijaay def ko mag jàpp koy ngir dëggu gi mu dëggu ñu bokk gis-gis ñu yóbbu ko Pastef kon ku ne Matar day wëreelu ci parti xoolaatal sa bopp Matar wëreelu wut ci parti leneen la ca des mooy ñoom ñiy wax bu fekkoon ne dañ ne ñu ne Matar dañ koo gañ a gañ a gañ loolu ñun moo nu motivé gañ googu ñu ñuy gañ moo ñu dolli jom ndax lu baax du yomb te ñun lu baax rek lañ bëgg ndax gox bi lañ bëgg mu suqaliku dañoo bëgg kumba am nday kumba amul nday jóg fi ndax kat lay Wade fi mu jaar vingt ñaar fukki at ak juróom benn nga nekk opposition kon yaakaar naa ne bu ne ñun li ñu gañ ñun looloo ñu dolli jom looloo ñu dolli fulla ndax nguur yàllaa koy joxe kon loolu ñun jaaxalunu waaye ñoom bu fekkoon ne tey dañoo doon benn la lëndëmaluñ xeli nit ñi kon ñun dañu mën a jaaxle waaye ñun dañoo biir ne ñoom ñoom a dëkk xam nañ ne ànduñu guddi ànduñu bëccëg bërki démb dong lañ def élection bi ñu defee parité tas seen bureau fu ne jaar nañ fa tibbantey tànk bañ dem élection kon loolu su déggoo amoon ci ñoom kon dañuy dañuy duñ def niñ def dëkk bi nag arrondissement Ndindi ba ci département sonn nañ li ñu sonalit mooy ñoom ñoo jiite te fan ñu waroon a jàmbatale fu ñu dem ne lépp baax na lu ñu leen jof ñu def lu ñu leen jox ñu def ko ci seen bopp yor ji koy poqe lu ñu laqal ci laxasoo ko loolee nag moo fi jeex waaye ñi ngi tàllal président loxo ak premier ministre Ousmane Sonko moom ñëw na fi xam na ndindi li muy dox xam na li muy laaj ndindi ndox mi doyut ndindi courant bi doyut ndindi yoon yi doyut ndax kat diggante fii ak Daaru Musti ñaar fukki kilomètres la ak juróom ñaar fukki kilomètre ak juróom nag diggante ndindi ak daaru musti ba nëgën yoonu suuf la kon loolu ñi ngi koy fàttali président ñi ngi koy wax premier ministre te daaru musti sëñ Touba ne woon maam Thierno demal daaru musti toog lu ma loof lu ma la fa fekkewu dama ko amut te kuñ leb Touba fay la daaru musti nga nangu mu amit dëkk boo xam ne benn dëkk la ndax sëñ ma paati si laa fa dëkk muy diiwaan si la am mbooyuk àjjana Touba yomal xiyam am na mbooyuk àjjana kon yaakaar naa ne jële fi ab tali yóbbu ko daaru musti ñun de bëgg nañ ko ndox mi bëgg nañ ne doyut effort mi fi nekk lim nuy wan maar day taali facture yaa ngi ñëw di ànd ak arrière jéem nañ ko dindi daaw ba ren bu ñëw rek indaale arrière te facture yi day am ñaari weer te nit ñi li ñuy li ñuy fay ko ndax ndox mi nga xam ne mooy tuur ci àll bi la ñuy teg ci loo si nit ñi kon loolu itam ñu ngi ko ñaan président premier ministre ñu ñëw càmbaral nu ko ndax kat nun sonn nañ nun nag bu ma nee commune Ndindi waxaale na arrondissement Ndindi waxaale naa département Diourbel ndax ñun dañoo bokk ak Sénégal seenub coono waaye dañoo am suñ coono bopp kumba am nday ak kumba amul ndey dafay jógeegut waaye ñi ngi koy yaakaar nag ci président Diomaye mii ak Ousmane Sonko kon ñi ngi lancé appel daal ne président nu xoolaatal ndindi bu ma nee ndindi arrondissement ndindi ndax courant bii am na dëkk yoo xam ne demu fa am na dëkk yoo xam ne dañ leen a nattal poto yi sax daanu nañ wàcce wuñ courant ba te ministre ba nekk dakaar ka ne ca àll ba gën a sori la ministre ba di laaj aw yaramam di ko laaj loolu la koo koy laaj ndax ñi ngi wal yor machine yi wal ñi ngi chargé ay portable ñi ngi def lépp léegi courant mooy dox te courant bitig la bu ubbi rek soo amee xaalis jënd soo bëggu te jënd ba kon courant bi arrondissement Ndindi manqué le nañ ko tumuranke nañ ci. Euh, je suis Modou Sylla euh, je suis Modou Sylla responsable de la gps Ndindi membre aussi du conseil municipal je vais un peu résumer en français euh, je tâcherai d'être le plus bref possible le plus concis possible nous avons appelé aujourd'hui à ce point de presse pour rétablir la vérité par rapport à la précédente déclaration fallacieuse et manipulatrice euh, euh, du maire Sersec par l'intermédiaire de ses, de ses collaborateurs. Et euh, nous comptons rétablir la vérité et comptons pas répondre aussi aux attaques ad hominem faites à l'encontre d'un de nos leaders, Matar Sylla, membre de notre parti PASTEF Les Patriotes depuis 2022 et il fut euh, candidat à la précédente élection euh, municipale. Des attaques que nous condamnons, certes, moins pour euh, Maguette Nian et Maguette Sec, parce que euh, la, la, la, débilité de leur, leur débilité et euh, leur réputation salissante peuvent être de parfaites excuses pour, euh, pour tenir de, de, de, de toutes sortes d'insanités. euh, même Ousmane Nia et, et Abdoulaye Sarr, leurs responsabilités, leur âge, leurs relations devraient leur interdire d'être des chargés de la castagne et de l'insulte. Et nous déplorons, nous déplorons leur attitude. Et je pense que euh, si leur gestion était aussi propre, aussi transparente qu'ils le prétendent, ils devraient féliciter Matasila d'avoir braqué les lumières de l'OFNAC sur leur gestion. Euh, je vais commencer par, euh, par rétablir les faits parce que c'est important. Matasila avait porté plainte en 2020, je crois le 2 décembre, si je me trompe, vous me corrigez. Le 2 décembre 2020, Matasila avait porté plainte au niveau de l'OFNAC pour des faits supposés de détournement de deniers publics, de surfacturation et de corruption. Et après enquête, euh, je, rappelle aussi que les faits qui étaient dénoncés euh, dans la plainte étaient la construction euh, d'une case de santé à Paypay pour un montant de 13 850 000 francs CFA, la construction d'un logement pour le personnel de santé pour un montant de 14 millions et un détournement d'objectifs sur 16 projets financés par le partenaire italien euh, Marco, Marco Gariazzo. J'espère que j'ai pas... J'espère que je n'ai pas, pas massacré euh, son nom. Et contrairement à ce que maire ont avancé, ce n'est pas Matar Sylla a porté, qui les conclusions de l'enquête au niveau de la presse. Je rappelle que euh, Matar avait reçu ces mêmes conclusions depuis 2022. Donc s'il avait pour but de, tenir, de ternir l'image de Sersec, qui est déjà ternie déjà, il l'aurait fait depuis, depuis 2022. Mais c'est plutôt le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a ordonné la publication de tous les rapports d'enquête. C'est comme ça que ça s'est passé. Euh, donc ce n'est pas une conférence de presse qui va le blanchir. L'affaire est pendante devant la justice et c'est de là que son, que son innocence ou sa culpabilité sera prononcée. Euh, autre précision aussi, les compagnons du maire ont fait un peu le bilan de CERSEC en y incluant la construction d'une gendarmerie d'un centre de santé, d'une route bitumée, d'un forage, etc. Moi, ça ne me dérange pas vraiment que vous optez pour la politique de la manipulation et de dire des contre-vérités. Ça me dérange nullement. Mais au moins, quand vous le faites, le au moins, faites-le teinter au moins de vraisemblance. Parce que on se demande comment une municipalité, de surcroît celle de Ndindi, qui peine à avoir 250 millions de budget par an, peut construire un CFP d'une valeur de 800 millions, d'une route d'au moins 2 milliards 500 millions. Vous me demanderez, comme on dit, où est la logique elle est, elle est où la logique dans tout ça Je vous laisse répondre. Autre, euh, autre aussi, euh, Monsieur le maire Ablaïsar a eu, euh, c'est le deuxième adjoint au maire, je rappelle, une voix officielle a eu l'autre jour le manque de respect et l'outrecuidance de dire devant vos caméras que vous ne trouverez pas dans toute la commune de Ndindy pas un seul village, mais, pas, mais même pas une seule maison où il y a une manque d'eau, ce qui est archi faux. Chers journalistes, je vous invite à faire la traversée de la commune, à aller vérifier par vous-même, à aller interroger les populations. Vous verrez que Euh, de de Diemekhel à Ndjibgolo vous trouverez une population qui a soif. Oui. Et cette situation de pénurie d'eau, de manque d'eau, elle perdure depuis 2021. Et c'est sur ces questions-là que nous appelons euh, monsieur le maire, pas sur euh, des détails comme il l'a fait lors de sa précédente déclaration. Euh, président commission massification Pastef bu ginnaaw bu ñu leen nuyoo ba pare comme ni mu ko Modou si la waxee sur la version française moom lañ bëgg a ñëw indi ay leeral tuuti rek yoo xamante ne ni suñu mbokk parti socialiste yi def nañ ko ci seen conférence de presse lundi bi passé wax ka ne maanaam bëgg a diaboliser si la jaxase ko ak askanu Ndindi ne moom moo dem porter plainte Cheikh Seck te dañu yaakaar ne bépp citoyen lambda nit simple citoyen simple bu nekk. am nga droit boo nekkee ci gox gis fa loo xamante ne jàpp nga ne lii lu ja lu yanut maanaal wala lu jékkut jaadul la nga dana soog c'est ce qu'a fait Matar Matar loolu la def da ñoom dañoo wax ne dañoo def benn euh, case de santé pay pay équipé ko defaral fa médecin bi euh, fu mu dëkk à de cinquante million lu euh, globalement Matar bi mu càmm bi mu saytoo loolu xam ne loolu am na yaa des contre-vérité ci loolu ci la demee saisir OFNAC bi mu nag OFNAC OFNAC ñoom ñoo ñëwoon seen bopp sur le terrain def seen i enquête def seen i rapport bi ñu seeni seen rapport ñu yóbbu ko xëy na la leen permettre ñu denc ko ba léegi booba jamono il était dans le pouvoir parce que Macky Sall moo fi nekkoon et il faisait partie du Benno Bokk Yaakaar loolu moo leen protégé woon léegi nag changement de régime am na président bu bees bi moo ñëw ne nañ nañ dañ génn rapport yi amoon depuis 2019 ba léegi rapport boobu du Matar Sylla moo woo ay journaliste di leen fay pour ñu jéebaane ko déedéet yéen itam am ngeen ci part de responsabilité parce que loolu la ñu wax ñoom dañ ne Matar Sylla dafa fay ay journaliste pour ñu génnal ko ay rapport kon loolu yaakaar naa bu fekkee am na xam ngeen dara bu amul xam ngeen dara léegi nag rapport yooyu moom lañ wax ne moom lañ jébbal ci table procureur bu Diourbel léegi affaire bi c'est très simple procureur moo koy seetal wax ne moom tax na wala taxut bu fekkee ne li mu wax am na am na euh, construction bi ak équipe équipage bi ak construction këru docteur gi am na nit ñi dinañ xam bu fekkee amul loolu procureur moo moo koy wax que ne am na wala amul bu amee jaanam waaj bu fekkee ne ne aussi amul moom du du Matar la moo ko épinglé du kii OFNAC moo ko épinglé kon loolu jarul yàq deru nit jarul wax nit dara xam nga li wolof di wax ku ku géej doyul ngay jëloo ak setala di ko sangoo du la tax a set waaw te yaakaar naa buñ lu ñu toog ba ci biir euh, am na yeneen euh, euh, preuve yoo xamante ne ni dina gën a leeral lool loolu kese parce que wax nañ fi une place publique ak marché bi ñu defaraat nañ ko à hauteur de cinquante millions te yaakaar naa ku dem fee ndindigee di nga xam ndax lañ fa def yanu na maanaa wala ñu woon maan loolu aussi ñi ngi invité les nouvelles autorités ñu ñëw yabal of naag ñu audité lool ndax yanu na maanaa wala yanut maanaa wa pour en terme de comme ni ko Modou waxee wax dëgg yàlla am mairie boo xamante ne nii sa budget ak sa fonds de roulement yépp sa compte administratif lépp bu ñu ko boolee c'est à hauteur de deux cent cinquante millions wax dëgg boobu mën mënoo defarub tali tali état moo koy defar dafa jéggi pré euh, dafa jéggi responsabilité maire gas forage jéggi na responsabilité maire centre euh, de formation professionnelle jéggi na responsabilité maire construction brigade de gendarmerie jéggi na responsabilité maire kon bu ñuy wax bu ñu jaakaan dañu wax ak nit ñu xamu dara peut-être ñenn ci population bi de mën lañ leen a nax di leen lëre mais ñun ñi nga xamante ne ne ñoo ngi ci dëkk bi dëkk fi ak ñoom xam lañ li maire mën a def ak lu mën mënta def. te sax li maire war a def moom moo ne moom moo laaj askan wi seen baat bañ dénk ko ko wax dëgg yàlla am nañ droit saytu liñ la dénk loolu ñu ci defal. loolu bu ko defee loolu jarul sant gërëm. moom moo ñu laaj suñu baatu askan bi ñu ci askan bi wóolu ko ba dénk ko bi nguur gi ci boppam am gafaka bu mu ko nattal pour muy dox ci askan pour muy dox ci bëgg-bëgg askan loolu bu ko defee wax dëgg yàlla jarul jarul eh, sant ak gërëm dafa def li mu war a def bu ko defut aussi am nañ droit jébaane ko ñëpp di ko dégg lii rek mooy wax ñu ngi leen di sant leen gërëm wasalaam asalaamaaleykum maa ngi tudd Koumba Ndiaye euh, nekk Pastef Ndindi bokk ci aussi ci ñi nga xam ne ñoo fi indi Pastef ba Pastef dox tey ba ku nekk mën si wax man nag li may wax mooy Euh, waa APR xaw ma waa PS dañoo defoon benn conférence de presse ñu ni Matar dafa daw làqatu dafa bëgg a làqatu ci Pastef bëgg a nangu parti bi ma di leen xamal ne leen ñun tiituñu Matar pour mu làqatu nangu suñu parti ñun ñoom la ñuy tiit pour ñu làqatu nangu suñu parti ndax ñoom ñoo ko fi def waa APR waa APR dañu ñëw indi fi Macky Sall metti woon na ñu yor seen ay oto yoo xamante ne nii ci àll bi lañ ko dugal wut seeni nit ñëw bi ñu indee Macky Sall ba mu neex ñu daal di jël monsieur le maire Cheikh Seck Abdoulaye Fall mu fi indi woon APR ak Saliou Samb ak Daouda Konté ñoom ñu fi indi woon euh, ak Adama Sarr loolu lañ gisoon bi ñu ñëwee ñoom ñu ngi woon PS di seetaan ñu dem ba APR neex. ñu daal di jël ñooña simple leen teg fële daa di tooge place ñooña lu ñuy jox ñu jël ko séddoo ko bàyyi ñee loolee nag ñun tiituñu ci Matar ñun ñoom la ñuy tiit ñu nangu si suñu parti kon nañu xam ne ñun Matar tiituñu ko Matar nag damay leeral li ko boole ak ñun ñun dañoo toog Pastef mën naa ni ñu ko fi indi man maa ci bokk maa si jiitu ak ñii ndax Matar Matar Sène moo ñu wax ne daf fi bëgg a taxawal Pastef nindi ma ñëw gis sëñ Modou mi laajte ñun a def ci bokk ma wër ba xam ñi bokk Pastef ñu jëli leen indi bi ñuy ñëw juróom-benni nit lañ comme ñoom ni ñu koy waxee à chaque fois bi ñu doonee juróom-benni nit ñu feer ci trop mësuñoo ñaan mësuñoo jël alalu jàmb def ko ci parti bi ñu taxawal parti bi parti bi taxaw ñu toog élection jot ñu ne nan la ñuy def. foog ñu ànd ak benn coalition pour ñu mën a taxaw fii ci mairie bi mën fee am doole. bi ñu xoolee ñoom gis nañ leen lan moo tax tànnuñu leen mooy dañu bañ ñu nangu suñu parti comme ni ñu def waa APS ñi waa APR ñi bi ñu defee noonu ñu ni léegi kan la ñuy àndal. am na keneen ku fi nekkoon mais kooku peut-être tudduñu ñu wax la tax ànd ñu woon ak moom li tax ñu ànd ak Matar nag dañoo gis Matar que ni Matar ci dëkk bi la dëkk. ñu ne Matar dëkkul ci dëkk bi man de sama maam mu ngi jóge kër Moussa Sall jaar miri na ñëw nindi kon jàpp naa ne mënumaa taxaw tey naan Matar dëkkul ci dëkk bi moom mi nga xam ne maama moom moom dëkk bi sant si la su ma demee ne Matar moomul dëkk bi damay wax lu ko neex te yaakaar naa man mi duggee kër mu Moussa Sall ñëw am na ñeneen ñoo xam ne ñoom tam seen maam dañ leen fee indi kon ñoom bu ñu bëggee tey ba nit di neex ñu ne Matar dëkku fi loolu Matar la ak i mbokkam ak géwélu juddu Matar ñoo xam ne ñu leen di tontoo ba xam man li ma xam mooy man li ma xam mooy Matar dañ koo gis mu set nekk APR ñu gis ne APR ñu fa nekkoon dàq nañ leen ba max nañ leen léegi ñun ñu ne Matar moomee nañ ko jëlee ñu andi ko ndax Matar kat gisuñu ci moom dara lu dul xam-xam lañu gis ci Matar. ñu nekkoon kon nañ dem waxtaan ak suñu ñu toog sama kër ñu waxtaan ñu ne nañ dem jëli Matar bi ñu ñëwee ñu waxtaan ak Matar Matar ñëw Matar bi muy ñëw fekk na parti bi amuñu woon doole bi ñu war a am mais ñu ngi def lu ñu mën kenn rek moo ñu doon jàppale mu ngi Canada ñu koy nuyuwaale muy góor mag di jël xaalisam di ñu jox ñu defar suñu parti ba mu taxaw jour bi Matar ñëwee Pastef intégré Matar moo ñu doon dimbali si carburant Matar moo ñu doon dimbali su bu ñuy togg mujj gi mun na mujj gi mun nañu ñëw leen sama kër ngeen fay toog te 16 bi sama kër la woon ñun tam ñu nangu andi ko fi te itam Matar ñun ñoo ko jiital Matar fekk si wuñu ñun ñoo ko jël si ñoo ko andi ñoo ko teg Pastef Matar jàpp naa ne man dañ ko war a remercier ndax liñ ko war a remercier mooy boo juddoo si dëkk. ñu am lu ñu jox maire ñu ne maire kat liñ la jox jàpp nañ ne am na lu si nekk loo xamante ne war yoon la ñu seet ñu seet ko ñu daal di moom mu dem OFNAC bind. bi mu bindee néewuñu moo def néewuñu defuñu yëf yi mu ngi ci yoon na ñu bàyyi yoon tranché su yoon tranché bu fekkee Cheikh Seck am dëgg ñu xam su fekkee ma Matara nekk si dëgg ñu xam ñu néewuñu moo jël néewuñu jëluñu mais ba daal bëgg nañ affaire bi leer ndax itam Cheikh Seck comme ni ma ko waxee léegi rek euh, ci départ bi. li taxoon ñun choisir ñu ko woon pour dem ci kawam ñun président Ousmane Sonko mu nekk premier ministre ñun moom la ñu gëm moom la ñuy topp ba dem Diomaye Faye moom ñu joxoon ñu ànd ak moom te premier ministre usman Sonko boo duggee bi nga tàppe seex Seck lu ñaaw lu Ousmane Sonko dégg Cheikh Seck ko ko wax. boo demee assemblée nationale soo demee assemblée nationale. dañ ci daan na naqar ñun dem nañ ba conseil ndax man conseillère la si si si mairie bi dem nañ ba conseil ñu woo ko sëñ Modou mi mën na maa seere moo ko woo ne ko dañoo bëgg attaques yi ngay def Ousmane Sonko nga bàyyi ko dafa taxaw daan ne loolu man la engagé la may wax euh, assemblée seen yoon néew ci man la engagé kon mu taxaw xas Ousmane Sonko saaga ko def ko lu nekk ci ci ndax mi loo xamante ne nii mu ngi nii ci téléphone yi pour dugg YouTube gis ko mosu ko waxal lu rafet loolu naqari woon ñu mais teewul dañoo àndoon ak suñu ngor bàyyi kon ñun duñu def comme moom ñun duñu toog fii di ko xas duñu toog fii di ko saaga duñu toog fii di ko wax dara ñu ni ñoom ba tey seen wax laay tontu ñu ni ñoom euh, dëkk bi boo duggee nit di ba ba ngay egg kokki lépp ñoo ko def man boo duggee nii ba ba ngay egg kokki li ma fi gis mooy centre de formation professionnelle bi te centre boobu noonu moom bu ko defaroon jàpp naa ne dina def courant ndax directeur bi démb rek mu may woo di ma ko wax mu ne dafa bëgg ñu woo ma Matar seen mu dimbale ko ci ministre de la formation pour mu def courant ci bi mais centre de formation bi centre bi am na deux ans centre bi am na deux ans yo ay ay ay tali di defar ay lii nga war a mën a dimbale sa population ñu am teen teen bee nekk ni di sànce benn format benn ah, kii moo fi ñëwoon jigéen ñi fa nekk ñoo dajale seen ay xaalis euh, wa defe naa nduur moo leen ma mayoon cent mille ñu di ko dajale di ko dajale ba mu bëri moom lañ defaree seen teen bee di ca naan ma jàpp ne am maire su mënee defar foora bu mënee defar euh, maire su mënee defar tali maire mën a defar poste de santé maire war naa mën a defar ndox maire war naa mën a defar toilette ci marché bi marché bi amul toilette ñun ñëpp gis nañ ko sama kër la ñuy dugg amul toilette nga continuer tuuti marché bi amul ndox sama kër la ñuy rooti ak kër yi dend ak ñoom kon jàpp naa ne maire bu liggéeyoon wala li mu war def mu def ko marché bi marché bi bi dina am toilette marché bi dina am ndox marché bi dina am loo xamante ne nii ndax marché bi gis ngeen ni mu président Ousmane Sonko moo fi ñëwoon ñu andi woon ko fi en 2019 bu mu ñëwee mu ne marché bi nu mu mel baaxul ci lañ dem tasaare marché bi nit ñi ñeenti marché ngi fi ñeenti marché ngi fi fu nekk marché la te benn rek moo fi kon monsieur le maire su fekkee say nit nee na liggéey yaa ngi defar dëkk bi dañ lay ñaan li nga xam ne moo gën a tuuti nga defar ci marché bi toilette dañ lay ñaan li gën a tuuti nga defar ci marché bi ndox dañ lay ñaan monsieur le maire ah foo bu dee yaa defar centre de formation bi nga yóbbu fa courant kon jàpp nañ ne yow yow yow say nit li ñu ne yaa ko defar ñun di ba fële ñun gisuñu loolu ñu ñu ngi ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon wax barki démb na dañu ànd ak maire ñun barki démb bi ñuy voté fi la ñu fekk mhm. ànduñu jiboowuñu ñun nag Matar ci ñun la bokk dañuy défendre Matar su fekkoonte ne Matar dafa nekk ci dëkk bi am nu mu nekkee woon ak ñun jël suñu place comme ni ñu ko waxee ñu ne dafa bëgg a jël suñu place kon ñun dañuy taxaw ñu wax ak ñoom waaye Matar bëggul dara Pastef lu may xaalisam di ñu financé jël xaalisam di ñu financé man loolu laa jàpp ne loolu la Matar nekkee ak moom ak ñun kon Matar amul leen loo xamante ne ni def na ko loo xamante ne ni ci Pastef lu ñuy tiit wala lu ñuy ragal ñi nga xamante ne ñoo toogoon di wax ñun duñu leen may bës ñun duñu xastante ndax attaque personnelle yi ñu def Matar Matar am na famille loolu na ko famille faj ñun li ñuy faj mooy attaque yi nga xamante ne nii wax li nga xam ne wax nañ ko te te am na si loo xamante ne amul ñun loolu la ñuy faj ñu bëgg nag xastante bi ñu bàyyi ko nindi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñun ñoo bokku nindi nañuy waxante lu baax di waxante lu rafet te bàyyi yu ñaaw yi ñuy wax te ñu jéem a defar dëkk bi bu fekkente ne dangaa ngaa jàpp ne yow xaalis bi nga yor dafa lew of nag daf laa setal demal nga wuy ji soo wujjee soo eggee affaire baa ngi si yoon suñu nee set nga set nga suñu nee setoo itam ñu xam ne setoo lu ci yoon laaj ñu def ko waaye ñun waa Pastef daal ñun ñu ngi sant Matar te li ñu booleeg Matar xam nañ ko te itam ñoom li ñu boole ak ñoom it xam nañ ko mairie bee lañ nekk li ñu bëgg nag mooy xaalis ba fa nekk muy budget ba te ñun budget bi chaque année ñu voté ko te saa yu ñu koy voté sëñ Maodo ñu ni 100 pour cent lañ koy voté mosu ñoo voté budget am ñu contre te xaalis budget boobu ñuy voté ñun dañoo gisul luñ ci def ñun dañoo bëgg ñu wax ñi leen def ci budget bi lan la ñu toog ñu leeral ko xastante wuñu ñu ndax koo ci xas xas boo xasee kaaw seex sekk xas nga kaaw mataar ndax ñoo bokk dëkk bi bokk lépp waaye nag politique la ñuy waxee nañu leeral li ñu nekkee nañu leeral maa ngi tudd si la dëkk Kër Ba si la li may tontu bëriwul tontu gi nag mi ngi jëm ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw la maire ñi nga xamante ni xamuñu seen bopp te bëgg a xam seen bopp ñoo ñu laay waxal benn ci màggat sekk mi nga xamante ni dafa topp seex sekk ngir ab dërëm ñun nag fu ñu xaalis fekk foofu la ñuy bàyyi parce que li tax mu ñu fay bàyyi suñu président bi nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye dañu ko jàngal ci ngor ci jom ci diiñ ci dignité yow nag da xamul sa bopp boo xamoon sa bopp doo ñepp sa gémmiñ parce que xamoo sax li nga doon boo xamoon li nga doon doo wax ñàkk a xam sa bopp nag moo tax ngay wax waaye nag euh, dëkk bi man li ma gis maire di fi def mooy yéen ñi topp ci ginnaawam képp ku fi làqu mu saraxal la def ci budget leeral ko doomu aadama yi waaye gisaguma budget boo xamante ni président de la république moo ko jox mu def ko ci commune bi ba pare di ko leeral yaakaar naa loolu moo ko yóbbu yóbbu af nag ngeen waroon a wax ci loolu waxu leen ci dikk di wax ci mataar loo xamante ni naka su dul noonu si la gàcce ngaalaama lépp lu mu war a defal mbokk xarit am di jàmm 18 amoo commune nu Ndindi yëpp def na ko ci jàmm def ko ci salaam te lu mu def fàtte ko ndeysaan yàlla na ko yàlla defal jàmm ba mu yeggalee liggéey bi nga xamante ni nu sumb na ko te naal ko ci ci ci kaw bëggu doomu aadama yi da nga ne nag Matar kenn toppul ci moom. Matar fu mu gëstoo dinañu gis li feek suñu noy noy gi mi ngi dem ak a dikki xooluñu dara lu dul ci moom lu dul ngor jom diñ dingate ji nga xamante ni moo nekk suñu président ak ñi nga xamante ni ay ay gor lan ay jàmbaar lan ay ay nit ñu baax lan parce que yéen ñi topp ci moom yëpp toppiwuleen ko lu dul ab dërëm man gisuma lu mu leen defal li ma fi gis mooy ni ma ko waxee rek ku dee ci yéen ci ginnaawam mu sarxal la def ko budget leeral ko budget bi nga xamante ni moo tax nag waa nag di ko topp na ko leeral ñun loolu lan soxla parce que dañ koy jox suñu commune pour mu defal ko ndindi forage baa nga nee bu leen topp bu leen fi fanaanoon du leen nelaw parce que riir ma si seen biir néeg moo leen di yee forage bee di sëñ Sidi Muxtaar mi nga xamante ni radiyallahu taala anhu moo ko fi def moom ci ndoxam la ñuy naan policier bii nga ñuy wax wala wala wala di ko wax sëñ Sidi Muxtaar à cause de moom moo ñu ko fi indil lépp lu baax lu leen di gis ci ndindi diggante Jurbel ndindi ba kokki sëñ Sidi Muxtaar la yàlla na ko yàlla defal jàmm fu mu tëdd wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñooñu ay complice leen te fun ma woo ma taxaw wax ko parce que dañ koo jëf ci commune bi koo jëf ci commune bi Cheikh sekk naw la wut waa commune bi nee na waa commune bi ay ginaar la leen jàppe heure bu leen soxlaa jàpp dugal ci kaafam te ñun nag ay gor lan parce que suñu maam Maxtaar Xari Silla suñu maam Njaga Maram Silla moo fàkk dëkk bii ñëpp dëkk moom xam nga fan la jóge fa mu jógee nag duñ fi nekk di di ko kii parce que xam na ko dañ boo bëggee jooy dangay tooñ ku la man ñun nag fi mu toll dañoo nekk ci yoon yoonu baax wi yoonu jub wi muy jub jubanti jub jubal jubbanti ñoom nag comme que jubóo nun il faut ñu jubbanti leen asalaamaaleykum wa rahmatullah